mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag bu ngeen gisee ñu génnal leen ci mbedd mi fas yéene waxtaan ak amateuru làmb yi parce que kon nag xam na ne làmb ji daaw mois de mars lañ gënoon a bëri fii ci Sénégal rawatina làmbi mbapat làmbi mbapat nag moo war a ubbi arène bi moo war a ubbi làmb ji bokk ak kan jax tey nag moo tax ñu ñëw fi nga xam ne nii moom moo di euh, Liberté 6 ak li ko wër nga xam ne soriwul terrain gaal nga xam fi lañ war a bëree dimanche ñu laaj amateuru làmb yi rawatina sama mbokku séréer yi nga xam ne ñoom tamit dañoo bëgg làmb loolu te di ko dund góor yàlla maa ngi lay ziar. doo ziar bu baax. tur bi nan la. Biram Ndiaye. Biram Ndiaye. waaw yow defe naa seetaankatu làmb nga de. waaw dama koy seetaan waaw. nit dama koy dund waaw. waaw ci Sénégal. maa ngi dëkk euh, département dik arrondissement Niakhar. Niakhar mhm. mu mel ne làmb ji daaw bu daaw ba mu tëj atum yàlla wéetoon ngeen lool de. wéetoon nañu waaw. wéetoon nañu aussi suñu mbokk yi nga xam ne ci la ñuy yëngatu. waaw xawoon nañ leen métti lool. mais nag yàlla moo defoon feebar bi. a ah, bu ko jëlee bu bu bi ubaadee dañ ci kontaan waaw ndax suñu mbokk la suñu rak la suñu xarit la kon buñ ci nekkee di di ci daal seen doole vraiment bu jëlee dañ ko tijjiwaat amuñ ci leneen du ñu kontaan daal waaw ñu ngi ci kontaan bu daal. kon daal pare nga pour dem terrain ga. incha maa pare naa ko am na solo kookoy biram góor yàlla maa ngi lay bëggee. waaw. nga ziare a nga paax. wawal dang no gonof fo simangolof a i leyange njom no ke o ñaƴa i content ten a paax parce que njom ne i miña mbug ta wet xaye i mba'e teen tig rek moof nan gilwa kilifa in i comme den jogu autorisation a ley ine mbeteno in way nan gilwa den in way ziare den dit i ñanana den rek kene na leen na jambatel mene te ref jirle roga ɓisin bo faw bo i katiran i njom koy a fela lool parce que mi fene sax ñoowo ganum i a fela a felay moos maaf reem a paax maaf reem mais saate ka koy deyum fadiidiim a Ndakaaru jaf leŋ maaf reem tere kiri tele gaal gi waaw jaf leŋ waaw maaga maaf reem quoi mais jamano fe rek um teel no xaƴ i yaam Njom a refa ref ka andoona il faut o jeg a ciiñ o jegange a ciiñ o teel no waas i i kontaan a man mii maa gën a kontaan yow tamit fi mu mel fi mu nekk nii yaa ngi xaar de ah, hmm. waaw Jax moo war a ñëw ubbi ak lil simple dimanche deux millions cinq cent mel ni loolu lu ngeen namoon la tamit namoon nañ ko koy bu baax sax waaw fu mu ne nii moom chaque jour ñu ngi xaar di nekk ci affaire bi quoi yaa ma gën a xam waaw comme samedi moom xaw ma dimanche mooy tëji moom nañ ci bu baax a baax incha allah waaw jaajëf. sama sëriñ maa ngi lay bëggee. waaw maa ngi lay sant nag. maa génnu. mais Fatick génnu. Fatick génnu. Eh. génnu gi ma dama lay Mbele ko bëgg naa leen may sawaali. may sant den gid ma leen. ñoom eh. ne koy xana fel lool. Eh. dimanche la soo soo bee yàlla soo bee dina dina bugg préparé bu ñëw jël drapeau yi. man mi. yow mii da ngay ñëw. waaw bu soobee yàlla ay. Ah, yow est-ce que attan gars yi. yaa dama tal kay ala gis. ñoom Doudou Sané Obale ñoom sa Tidiane ña. mais Doudou Sané mënu ma ci dara. Ah. <laughs> mënu ma ci dara. waaw bu soobee yàlla kay. Serigne ko jël de yóbbu yóbbu Mbela Kaja. Kaja. waaw kontaan ci yow. ok. Baye Fall. Baye maa ngi lay bëgg. maa ngi bëggee bu baax waaw. Baye Fall saison bi ubbi na de la lutte simple nag war am dimanche terrain gaal gi deux millions cinq cent. waaw ah fi ne kontaan ah kontaan nañ de yàkkamte woon nañ ko torop waaw ñu di ko xaar rek ba dimanche incha allah ñu daje foofu ñun après ñu dem rek ñun ñun ñëpp. see seetaan ñu ngi koy xaar waaw. di ci sama mbër mi nag. Toubacouta. Ah, waaw dëkk Mbour. kookoy sama mbër mi waaw. mais dañuy dund làmb. nekk ci rond point liberté 6 mbër mbër maa ngi lay ziar. delloo naa la ziar. ba nga jàmm. am naa jàmm bu mbër mu mel ni fi mu nekk nii contentement amaat na par rapport ak lamb ji ñu tëjoon tijji ko rawatina li simple bi nga xam ne dimas daa war am fi nga xam ne moom mooy terrain gaal gi 2 millions 500. waaw ah dañ cee kontaan trop. billaay ndax xam nga toog ay at ak lu xaw jege ñaari at to boorewoo compétir daa metti trop. billaay moo waral yéen i yi dugg si sax. mais saa yi moom comme tijjewaat nañ ko sant yàlla bu baax a baax billaahi mhm. kon daal dimanche man nañoo xaar nekk amateuru làmb yëpp fi mu nekk nii daal dinañ leen gis ñu dikkaat seetaan waaw ñëpp ay teew bu soobee yàlla ñu ñi ñëpp dañuy def bu soobee yàlla et tam di ngeen jéem a euh, respecté mesures barrières yi ñu wax sanitaire yi waaw nañ ko respecté waaw comme ni ko gars yi di defee rek ak niñ ko waxee rek waaw waaw mais seen seen seen xol daal sedd na torop kay billaa walay sedd na de billaahi waaw lii moom ga yi nañ ko def bu yàgg mais boo mënut ta bañ da ngay nangu ko waa li gars yi di wax waaw. billaa wala waaw noonu la demee nag. billaay. mel ni ba tey yàgg rek ñu ngi ci fii nga xam ne moom mooy Liberté 6 defe naa fii ñu dugg moom boo xoolee dañ fi fekk ñu ngi fi fekk xam nga ne ay liggéeykat lañu ay saret ngay gis maanaam bi lépp lépp lu jëm ci wàllum tabax ak yu mel noonu góor yàlla maa ngi lay bëggee. waaw maa nga jaam. waaw sant yàlla bu baax. tur la. moom Modou Mané laa tudd. yow dégg naa amaturu làmb bu mag nga làmb ji tëjoon na atom daaw mars ba tey muy ataat ci mars ren ñu war ko ubbi dimanche ak tournoi fii ci terrain gi. waaw ah loolu de bu amee moom dina baax quoi ndax Sénégal léegi toll na Sénégal bu njëkk baax léegi bokkatu kiiwul quoi niroowul quoi parce que da ngay xool bu njëkk ba lamb ji amoon na fi doole ñëpp ñi ci intéressé wu xam nga lamb da da ngay jékki rek. nga gis ñu publicité lamb ne lamb day am jour nangam mais yow da ngay di sa jour bi jot nga mën a dem seetaan mais léegi loolu amatul wa wax vraiment mun doon loo xamante ne ñu manqué ak trop trop trop trop wax vraiment mais comme day ubbi dimanche bii nii alhamdulilah mun nañ ne alhamdulilah rabbil alamin kon jàmm dellu si na waaw jàmm dellu si na. yow mbër simple am nga ci mbër. waaw mbër simple yi am naa ci mbër de am na beneen mbër bu dëkk fii xaaral la bébé xaaral la waaw. maa ngi moom ñoo nekk chaque jour sax waaw. Mm. mais kon daal fi ne sa xel dal na. waaw xel dal na waaw Sénégal moom léegi lu ñuy ñaan mooy yàlla jàmm yàlla na fi jàmm sax quoi waaw ndax jàmm mooy lépp ndax yaa ngi gis nga fu ñu jógee jàmm amuloon ñun ñëpp ñoo ngi ni ñu yoon ci tolof tolof comme léegi jàmm ñëw na alhamdulilah waaw. daa fay. góor yàlla yow yow yow loo ci bëgg ref def lamb ji day ubbi dimanche ak tournoi lutte simple. ah waaw loolu loolu loolu sant yàlla la ndax tolloon nañu jamono foo xam ne. yàqamti woon nañu lii sax làmb ibbeeku mais comme na demee na ne nii kon sant yàlla quoi waaw ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan yàlla nag mbëri nañ entraîné ñu entraîné bu baax ñi xam xolal dóorante bi jot na de. day métti day métti de roofante bi. ama ala accu de dëbbante dóorante roqosante ba mu saf sap kay. war na Serigne Touba. simple bi yow koo ci supporté. waaw li simple bi nag maa benn mbër boo xam ne kooku moom moom moom su ma sañoon tey mooy nekk roi de arènes mooy ala accu booy bi dëkk xaar yàlla fii. xaar yàlla xaar yàlla instant bi ndaw la te moom la ñuy tiitaroo. di ko ñaan yàlla nag xoolal di ko ñaanal. Mhm. lu mu bëgg ci xolom xam nañ ko mooy roi yàlla may yàlla na yàlla may yàlla roi bi dugg xaar yàlla génn parcelle ñëw xaar yàlla loolu laay ñaan nag man nu saa sama gars yi sañ sëñ Touba kontaan ci yéen ah. ngi fi nga xam ne moom mooy rek ci Liberté 6 kilifa gi tur bi maa ngi lay ziar. waaw ah, man de maa ngi tudd Malick Ba. Madi Ba. Malick Ba. Malick Ba waaw. Malick yow dafa da ngay faral di seetaan lamb lamb ji tëjoon na depuis daaw ren waat na actuellement suba ñu war koo commencé wala ginnaaw suba ak tournoi li simple. waaw wax dëgg yàlla mu nekkoon lu métti nag waaw mu nekkoon loo xamante ne lu ñu namoon la waaw parce que ñun Sénégal amuñu benn sport baana maanaam boo xamante ne ëpp na làmb daanaka làmb làmb ñun ñoo ko moomal suñu bopp waaw bu mu tëjee ba léegi gis nga dëkk bi nu mel te dafa am ñoo xamante ne seen liggéey ci ci maanaam seen yëngu-yëngu ci la nekk daal te làmb dafa yaatu waaw maanaam comme bi ñu demoon nañ sax ba ne léegi nañ ko def ay huis clos affaire noonu mais xam ne ne làmb ak huis moom taxul ñuy ñuy ñuy wax làmb quoi waaw comme nag mu ngi ubbi wax dëgg yàlla ah mbégte lay doon de waaw dëgg yàlla luy luy neex lay doon waaw. yow da ngay faral di seetaan li simple. ah wax ñun kay Sénégal dégg wax ñun làmb moom làmb la quoi. waaw suñu yëf la uh-huh. waaw suñu yëf la daal moom daal làmb moom fu ñu ko gis si télé beeg wala fu ñu ko gis si mbedd bi rek ñuy taxaw di seetaan waaw waaw. kon daal kontaan nga ci loolu. lool lool lool sax lool lool lool. waaw di ñaan nag di ñaan maanaam comme ni ñu ko waxee. buñ ko ubbi rek euh, ba bàyyi ko noonu muy kii nañu na waaw nañu respecté voilà nañu nañ ko gën a kii waaw ñu respecté ko bu baax a baax bu ko defee ñu gën a euh, euh, jàppale gars yi waaw combat yi gën a neex waaw mais nañ respecté dawal majeur barrière waaw waaw buñ ko ubbi rek nag ne ubbi nañ ko rek bàyyi nit ñu kii waaw loolu moom soxla wuñ ko waaw baax na waaw mbër maa ngi lay ziar waaw maa ngi lay delloo ziar bu wér daa mel da ngay bëri ay tournoi waaw maa ngi si de noo tudd Moustapha Moustapha ban nga dëkk maa ngi dëkk Fatick Fatick waaw euh, non non euh, jaareex bu ñuy wax jaareex waaw commune de jaareex waaw. ren nga bë ren bëre nga. ren non non ren bëreeguñu. Mm-hmm. non non léegi mbir yi ubbi na dimanche la war a commencé de. incha allahu rabi dimanche kay ah ñu ngi gërëm ñëpp rek di sant ñëpp. Mm-hmm. di sant ministre bi encore. Mm-hmm. ah affaire bi moom noonu la aduna moom bu soppeekoo da ngeen di soppeeku rek. waaw noonu la noonu lañ ko jàppee di entraînement di ñëw rek. xam ne xanaa jamono dina mos a soppeeku. loolu kese la. ah mais ñu ngi sant ñëpp daal. dimanche pare nga pour bëre si. dimanche incha allahu rabi. incha allah incha allah ñu ngi sant ñëpp encore incha allahu rabi. pare naa pour bëre ji waaw. fii Dakar. man maa ngi fi euh, écrit Adama Diouf. Adama Diouf écrit Adama Diouf maam mi diis waaw. Ah, yaa Adama waaw Adama waaw copain boobu maa ngi koy nuyu di ko <laughs> la Ablaye Diop waaw non noonu la Ablaye Diop bu sum waaw ah ñu ñu ngi xaar de ñu ngi xaar de. waaw gars yi nañu ñëw rek indi gars yi yëpp. ñu mën a bëre quoi parce que am ñu ñaari at ware wuñu estaay namante nañu bu baax waaw namante nañu bu baax solo mbër ok ok jaajëf moom mooy rond-point Liberté si defe naa ki ñu jàkkaarloo tamit ci làmb la bokk yaakaar naa mbër maa ngi lay bégee maa lay delloo bégee baaba tur ceeli doole yow yaay Thiel numéro 2 ba nekk ri nga ne. man maay bawal mbooloo. bawal mbooloo ci ñoom tafaati. waaw foofu laa ne mu mel ni làmb ji day ubbi wala ubbi na sax dimanche ñu war a jëm ci tournoi boo xam ne dañ ko teg muy 2 millions 500 jàkk sa teg ko dafa naa namoon ngeen làmb namoon ngeen ay tournoi namoon ngeen bëri dóor. non namoon nanu ko lool parce que instant bi moom mooy lool xam nga ne bu ñu demee bo instant bi ñuy dawal kalandoo moom xam nga ne ñàkk naan pexe quoi ah. waaw. toogaay bi dafa yàgg gisuñu dara kay bëriwunu deful nen ñu ñëw nekk ci joob bi rek comme que job beeg looloo an kay bu lee doxul rek nga ñëw ci lii mooy loolu waaw. kon ubbite bi daal kontaan ngeen ci. non kontaan nañ ci lool te bu suur ba dañuy takk ngem dem de. ah yow di nga ñëw ca tournoi ba. waaye luy loolu maa nga fa de kenn du ma fa jege. kenn fa jiite waaw lu leer. maa ñëw pour defante gaay waaw am na luur am na lese de. non maa ngi ca lese ba. yaa ci lese bi waaw. waaw kon daal yow ba affaire yi ba te yaa ngi ci rek ne ci sab kalandoo di dawal. non maa ci kalandoo bi bu ma wàccee une ma joxem ngon daal di dem géej bu cinq jotee ma dem géej bu fajaree ma ñëwaat. noonu nga ko jàppee waaw. comme fi mu ne yëg nga sa bopp ne physiquement pare nga. pare naa lool sax. pare nga waaw. yow moom mbëru mbapat nga yow itam yaakaar. waaw mbëru mbapat laa moos. Euh, yow kañ nga mujj a takk ngeen bëree mbapat. non yàgg na yàgg na loolu moom ndax coronavirus. waaw ndax coronavirus waaw. léegi nag nee nañ gars yi affaire aji bàyyiwaat dañ affaire dimanche làmb day am rawatina li simple bi fii ci terrain gaal gi. waaw day neex bu soobee yàlla. waaw yàlla buur la lépp day baax. lépp day baax waaw nañ ko nag mais comme tijji na rek alhamdulilah quoi. yow ban dëkk nga dëkk. Senghor. Senghor waaw Senghor fu mu ne. Fatick. Fatick waaw. Fogole séeréer. mais sim naa dina paax a paax nguur ko fop mais bëggaa supporter ke mhm. no xanu jomne mais uh-huh. simna dina paax quoi uh-huh. kontaan ci yow ñoo gën a kontaan ci yow ok sama gars yéen tamit da ngeen di seetaan lit simple bi de defe naa ne chef maa ngi lay bëggee kalandoo yee dàq dem làmb <laughs> làmb daa am safaru kalandoo safaru car rapide làmb ñëpp koy dund maa ngi lay bëggee maa ngi lay delloo bëgg ci loo ne maa ngi nii rek mu mel ne ji ubbi na fi mu nekk nii daa mel ni contentement gis na ko ci yéen euh, bu baax a baax mhm, loolu moom dégg la day gën a baax rek waaw sant yàlla santaan nañ bu baax a baax kay waaw lamb bëgg instant yi kay def nañ jàmm ñëpp uh-huh. instant yi moom mooy loolu uh-huh. waaw day neex di a respecter mesure barrière yi mbaa waaw loolu kay dañ mu ngi fi de non lépp dina baax lépp dina baax uh-huh. waaw yàlla rek moo fi nekk barke yàlla yow foo dëkk yow man Senghor laa dëkk man ak kooku ñoo dëkk ma nuyul ma ci ci ci waa Senghor maa ziaraat na paax xaji leng waaw ma simna den tu en na mene fo na meen fop maxey begaa den waaw nuun wene tamit maxey begaa nuun a paax waaw a caax naaga yo mhm. kontaan ci yow waaw jërëjëf lam ji tëjoon na bay tijji fi mu nekk nii dimanche justement ñu war a jëm ci tournoi lutte simple mu mel ni namoon ngeen loolu ah lam moom namoon nañu ko moom waaw nam nanu lam ji bu baax a baax essange mooy loolu xaalis amul mooy loolu dëkk bi dëgg na te mbëri sonn nañu fi mu toll nii bu dee woon jàpp ci combat yi mu taxaw ñu mën koo bëre mooy lool yaa ma gën a xam yow da nga doon bëre daa mel ni de. non man nag mënu bëree daaw ma bëree de wax dëgg yàlla waaw. non non xanaa ay lambi fo rek. waaw waaw waaw. affaire koo bàyyi. waaw bàyyi naa yooyu léegi. da ngay ñëw rek seetaan. léegi waaw damay dugg stade seetaan mbëri waaw mooy loolu mbër maa lay bëggee. non la ko. mbër maa ngi lay bëggee. waaw delloo bëggee. loo maa ngi si jam tur bi nan la. tur bala Balla Gaye Balla Gaye 2. waaw waaw fis mu géejawaay wala. waaw waaw bu géejawaay bëgg ko lool te mënuma koo gis. billaahi Omar rek nga bëgg. billaahi dina la seetaan dina gis li ah dina ko gis ah yàlla na ko gis a jam ah, ah. loolu laa bëgg de sama mbër maa ngi leen di ñaanal yàlla. mais tax nga bëgg ko ba ba yow balaa ma lay laaj làmb ji war moo ma jaaxal xanaa moom bëggeel moom fu ne lay jógee. Ah, billaahi damaa jëkkee jëkki bëgg ko. billaahi te xawma li tax ma bëgg ko. billaahi. Bombardier ne du ngeen am dara de xawma nag loo ci xam. moo am dara. waaw te man dama ñaanal saa yi yàlla def ñu am komba waaw Modou Séréer Njaaxum waaw Mor Kankin yàlla na leen yàlla def ñu am combat jàmm ah. waaw yàlla may leen ndam. am na solo léegi làmb ji day ubbi dimanche tournoi 2 millions 500 terrain gaal gi mu mel ne namoon ngeen làmb tamit de. trop la moom stade des ko namoon te daa bokk si ñun. billaahi yàlla na yàlla def daal moom li waaye di yóotu rek yàlla na def màgg waaw. loolu laa ñu foo dëkk man maa ngi dëkk Bawal. fan ci Bawal dëkku Njaaxum. Touba Toul wala. non réew waaw waaw waaw ñoo dëkk ñoo jegee ñu kër waaw. góor maa ngi lay bëgg yow foo dëkk. man jolof laa dëkk. jolof jolof nga yow. <laughs> jolof jolof laa waaw. Ah? <laughs> ana xar yeeg nag yi. <laughs> Ah? doo may ay xarak ndax ku ne jolof ne xarak nag. waaw jolof de am na xarak. nuyu sama président ba Massamba Dieye doomu jolof la. waaw mu mel ni tamit namoon ngeen lamba en tant que jeune lamb ji tëjoon na at li ko waral mooy coronavirus bi donte corona baa ngi fi ba tey mais terewul bi jël na ay mesures pour pour ubbi ko loolu nu ngeen ko accueillir ak euh, nouvelle boobu. ah di gën santaal yàlla bu baax rek wax dëgg yàlla lamb ji moom ñëpp namoon nañ ko quoi ndax wax dëgg yàlla Sénégal lamb lañ xam maanaam lamb lañ xam. wax dëgg yàlla làmb ji moom namm nañ ko moom su ubbee moom dañ ciy kontaan wax dëgg yàlla waaw dañ ciy kontaan moom uh-huh. ndax namm nañ làmb trop nekk nii xol yëpp bég na moom <laughs> mu mel ni boo ne rond point Liberté 6 rek du ay dawalkatu kalandoo rek a fi ne wala ay maçon yooyu am na ay jaaykat ak yëpp parce que gis naa sama mbokku jaaykat yi xam man jaay naa fëgg jaay nag yàgg mar fii jënd naa fi fëgg jaay ba taay ci rond bi par samedi dem ambulance jiwaat ko maa ngi lay bëggee góor yàlla lay delloo ziar mais fi waa gis nga àjjuma bi nii rek juma mu barak yaa ma gën a xam waaye mu mel ni yow tamit sénégalais nga comme sénégalais yëpp di dund làmba ah? waaye maa ngi koy suivre waaw mhm. kan mooy <laughs> moom benn mbër la mu am si làmb ji muy Balla Gaye ah, nag loolu laa jàpp déet kon nag ñi muy bëri lu ñu doon ñooñu adversaire lañ nii rek mais duñ mbër yow yaa wax li mbër moo am muy Balla maa ko wax mu nga Pologne ba mu ñibbisi. Bombardier moo bàyyi ko foofu rek. Ah. muy jaay ngand ngand lu du dara. Ah. pataas la pataas. pataas li gars yi naan guy matut këriñ. Ah. loolu la. mais léegi làmb ji day ubbi wala sax ubbi na. dafa naa ne fi mu nekk nii lu leen manqué woon la ci par dimanche wala samedi ngeen daan demee stade du seetaan di bége muy lit simple bi muy lit avec frappe bi mhm. loolu noo ko accueillir boobu nouvelle. waaw làmb bu ubbi ak yeneen activités yu ubbi yëpp suñu mbégte la. ku war a dem làmb di nga jënd benn jiin boo sol wala benn t-shirt boo sol wala benn dàll boo sol loolu day dugal lu bari ci économique bu Sénégal bu Sénégal durant un an dugul loolu bu commencé dugg di nga gis changement bu bari si dëkk bi ak mbégte bu rëy la si képp ku nga xam ne ni yaa ngi bëgg dara loo yóbbu sa kër ñëpp ko bokk mbégte la pour ñëpp dem ñun duñu mbër mbër yi taxawoon nañu ñu doon football dematuñu musiciens yi dematuñu jaaykat yi taxawoon nañ taxawoon li ubbi nii ubbilul yow ubbilul ma monte la ubbil ñëpp lu ubbil mbégte la daal ñu ngi kontaan bu baax a baax. parce que day wane ne kon loolu loolu moo lay wane ne yàgg maar waa làmb ay sañsekat lañu te wax na dëgg làmb defe naa gars yi amateurs yi chaque dimanche bu ñu ñëw dana indi yére bu bees dàll bu bees ak yu mel noonu. waaw gars yi dañoo bëgg lu baax. waaw teraanga àdduna bët nit ki li ngay li ngay am si ngay jëriñu quoi àdduna amul solo yàggatul. en même temps maa ngi jaale waale faramaaren bi papaam muy waali kii waali sekk di ko jaale papaam di ko wax yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barke alquran wax El Hadj Malick gars yi gën koo xam ci El Hadj Shop waaw borom Grand Yoff Liberté 6 sama village Porokhane maam jaaratulaay waaw jeex na fa laa dëkk nga fu baax waaw gis nga ñu ngi lay ziar baax a kon fii laa koy tëjee gars yi mu mel ni tey nag li ñu génne woon mooy laaj ñi seen xalaat rawatina amateuru lamb yi dund lamb nu ñu gisee saison bi nga xam ne ubbi nañ ko mais biñ ko ubbee ba pare tamit ku ne xam ne ne dimanche deux millions cinq cent la jag si terrain gaal gi dégg ngeen ku ci ne li nga wax maanaam contentement la ñam kon loolu la may man ne kon yi wax dëgg yàlla namoon nañ li nga xam ne mooy seen culture moo xam ne ne ca làmb ja la football ba volleyball ba musique ba ak lu mu ma doon ak jàng yi sax ndax chaque jour da nga doon dégg chaque kenn nga dégg ay jàng ci àll bi ñuy tànt def ay jàng te loolu lépp koom-koom lay dugal waaye li ko waraloon wala li ko téye woon mooy feebar kon nag feebar boobu yàlla na ko fi yàlla jëlee waaye encore ku ci ne booy dem ci mbooloo na nga yor sa masque yor sa zel ñu respecte mesure barrière parce que tamit nag looy tal lu ne day fekk nga am jàmm am wér-gu-yaram waaye maar ñaar yi bu la ci dëddu nga amee jafe-jafe boo wéradee lekk dootul neex ci yow ne la ne la waxi noppi jàmm moom bu amul foot maanaam la père Max Mbargane waxoon moo ci am rek waxuma la ab dëkk waaye kër sax day xat bu jàmm amul kon yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu wér gi yaram defal ñu gudd fan def ci senegal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi yàgg di la bëgg di nuyu téléspectateur u Equivox TV yëpp